naw buñ leen nuyoo rafetlu ni ngeen di topé suñ chaîne bi ngir informé wu lepp lu xew ci réew mi ak ci bitim réew tay nak seen atti di jour dañ koy doré ak prêcheur bi di Iran daw mom nak gëj nañ ko gis lool la ci karamu écran bi ci lool nak dafa dal di teud feebar ba tax sax askan yëpp sàkkoon rek ngir ñu dal di koy jappalé lool nak bokku na ci liggéey bu rafet bi nga xamanteni mu ngi ko doon def fofu ci diwanu seen TV ba sax am émission bo xamanteni ñu ngi ko duppé rek Grand Cœur mom Iran daw nak émission bobu mu ci doon jappalé rek ñëpp ñi nga xamanteni dañoo taw tawat seen loxo jotul seen ginnaaw mu nekk euh, geste bu am am solo nekk tamit loo xam ne euh, dafay yëngu ci wàllum social bu baax a baax moom Iran Ndao nag euh, ci sama kàddu ñu ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal mu tane ñëwaat ci kanamu écran bi dooraat li nga xamante ne moom moo di liggéeyam. ci leneen la ñuy wax bokk na nag ci li nga xamante ni sax moom mooy euh, kii di Cheikhou Kouyaté euh, moom nag gannaaw ba nga xamante ni euh, coow mu ngay jib rek ku ci nekk nag di wax rek naan Cheikh Kouyaté jamono ji mu ngi ci wàccaayu takkub ñetteel moom nag amoon na sax ñaari jabar waaye nag gannaaw information bi nga xamante ni site bi di Kawtef daal dina koy joxe xam xamle rek ne kii di Cheikhou Kouyaté mu ngi ci wàccaayu takkub ñetteel loolu nag du ker rek ku dul kenn sax koo xamante ni mën nañ jàpp ne ab actrice la ci série bi nga xamante ne moom moo di Karma. Bebe Aida ñent fan a ngi ni gisunu ko mom nak daal di disparaître mu nek sax ap kidnapping loolu lañ ko mëna duppé ci lool nak ñi nga xamanteni sax ñom ñoo di ay wajurum daal di am njàqare lool ak ñi nga xamanteni sax ñom ñoo di dëkkandoo ak Sénégal yépp ci xalé bu ndaw ñu daal di koy keuf rek lool nak mu nek lo xamanteni ñepp ñu koy ñaawlu ci fatale nak mom ñi nga xamanteni ñom ñoom ñoo di waajuram di Salouma Diagne ak ki di Kiné Diop ñu ngi ci njàqare bu baax baax ndax kat sen xalé bi wala sax seen a doom ji dafa daal di disparaître rek ci diiru ñeenti fan ba léegi ñu ko gët. ci leneen la ñuy wax kii di euh, soxna dara nekk sax soxna ci euh, Wally Balago Seck euh, moom nag gannaaw ba nga xamante ni jamono ji ñu ngi koy gis loolu mu daal di fës ci réseaux sociaux yi daal dinay apparaître rek moom soxna Aydara moom la ñuy gis noonu mu nekk une femme toute belle daal di nekk sax soxna ci ki nga xamante ne moom moo di kat bii di Wally Balago Seck waaye nag ci Wally Balago Seck moom sax la ñuy des ba léegi rek moom nag mu ngay waajal ab concert bu mag diwaanu Thiès euh, yamook euh, le 25 loolu nag mu ngi koy amal foofa ca place de France ci euh, loolu nag ñu nga ca wàccaay bu baax a nekk ca installation ngir waaja rek show bi nga xamante ni moom le prince des Faxamaaren mu ngi ko fas yéene amal foofa ca diwaanu a ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo di nasaraan si daanaka billet yu prix ëpp ñoom ñoo ko daal di jënd loolu rek ngir daal di teew foofa ca diwaanu Thiès ngir fekkee show bu Wally Ballago Seck ci Viviane Chidid la ñuy wax moom nag gannaaw prestation bi nga xamante ni daal dina koy def foofa ca diwaanu Bercy foofa ca Paris ci loolu nag moom Viviane Chidid daal dinay teewaat rek foofa itali Italie ñu daal di koy réserver benn accueil bu chaleureux foofa ca aéroport bu Italie

ci keneen wala sax ci ñeneen la ñuy wax muy Pape Abou Cissé ak kii di soxna madi Marie-Louise ñoom nyom gannaaw ba nga xamante ni amal nañ seen mariage ñëpp dal di teew rek ci bile bis ñoom nag ñu ngay wéy rek di dund seen mbégte kii di Pape Abou Cissé ak Marie-Louise ñoom la ñu gis noonu ci photo yi nga xamante ni sax moom la ñu mujjee publier ñu nekk rek en toute complicité kii di Marie-Louise ak international bi di Pape Abou kii di Gabrielle na ku ne daal dina koy ràññee rek ci li nga xamante ni sax moom moo di xeexal jigéen ñi fii ci Sénégal récemment nag ñu daal di koy gis rek mu daal di proche trop. ci uh, Adji Sarr uh, ci loolu nag moom uh, Gabriel Kane daal dinay génn rek lool nag bokk na rek ci daal di def rek ab déclaration moom sax muy xam ne nag depuis ba mu tàmbale di défendre kii di Adji Sarr moom nag daal dinay toog juróom benn weer yoo xamante ni jotul salaire am ci loolu nag mu mel ni sax dafa dal di rek ñàkk liggéeyam ndax kat ni mu tàmbale di xeexal kii di Adji Sarr moom nag parewul dara ngir dal di bàyyi rek bile combat ba tax sax dina traîner rek office euh, ki nga xamante ni sax moom moo di patron ba ndax kat euh, six mois euh, jotul li nga xamante ni salaire am te nag mu ngi ko remarqué depuis ba mu daal di sóobu rek ci lutte bi di jàppale rek ki nga xamante ni sax moom moo di Adji Sarr coowal Oustaz Modou Fall teewaayam foofa ca Paris Bercy loolu nag mu ngi continuer rek di jur coow mu mel ni nag internautes yi bàyyiwuñ ko benn yoon ah, même sax moom bu dee génn na daal di leeral rek wax ne liggéey moom moo ko fa yóbbuwoon waaye kat ab photo boo xamante ni sax publier ko muy def selfie rek ci kanamu Tour Eiffel moom nag Oustaz Modou Fall gannaaw ba nga xamante ni publier na bii les photo ni internautes yi nag bàyyiwuñ ko benn yoon ci teewaayam foofa ca Bercy waaye nag moom Oustaz Modou Fall ci fàttali génnoon na na leeral rek li nga xamante ni sax ah, internet yi ñu ngi ko ci doon saboté bokk na sax ci di wax ne concert bu Youssou moom moo ko dal yóbbu ah, muy leeral rek wax ne liggéey bi ah, fépp foo xamante ni rek war na faa dem dina dem amal ko ca na mu waree ci procès maire bu Guédiawaye la ñuy wax muy ay dara procès boobu nag daal dinañ koy dàqaar rek ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ci loolu nag ñu daal di gis rek ñi nga xamante ni sax yi kii tey ci suba daal dinañ koy taxawoo kii di maire bu Guédiawaye loolu nag bokk na rek ci ab foule bu bëri rek daal di teewoon foofa ca tribune nag li mu fës rek ay kaddu bokk na rek ci dal ci kii di njiitu réew mi di Macky Sall ah, mu dem ci sax bay wax naan Macky amul xam-xam loolu nag nekk ay kaddu yoo xamante ni moom Assane Diouf daal dina koy yëkkati waaye nag keneen koo xamante ni rek mu nga woon ca wetu maire bu Guédiawaye ah, muy ab artiste di Queen biis moom nag muy wàññi rek soutien bi nga xamante ni mu ngi koy am rek ci kii di Ahmed Aïdara bay sàkku sax ñu daal di koy bàyyi mu dooraat activité am ci euh, leneen la ñuy wax muy kii di euh, tiktoker bi di euh, Khabilam nga xamante ne kenn dootu ko présenté ci àdduna bi yëpp moom nak dal dinay nekk tiktoker boo xamante ni moom la ñuy gën a suivre jamono ji mu daal di am sax lu toll ci 142 millions d' abonnés loolu nag dépassé sax ki nga xamante ne moom moo Charlie D'Amelio moom Xabi nak gannaaw ba nga xamante ni doon tiktoker bi ñu gën a suivre dal dinay gagné abonné yu bëri mu nekk koo xamante ni am bu baax a ci àdduna àdduna bi yëpp gannaaw TikTok yi nga xamante ni ah, mu ngi koy def waaye nag dañuy des sax ci wàllum TikTok ba léegi bi yoon nag ci ab scandale sax la ñuy wax ki nag ab tiktokeuse la di wuyoo ci turu Rabi moom nag gannaaw ba nga xamante ni am na ab jeune bu daal di tudd Thierno daal di am rek accident moto ah, mu nekk nag accident bu graaw moom nag kii di tiktokeuse bi di Rabi ah, daal di nay rek sàkk woon ci ab dajale cagnotte loolu nag bokk na rek ci daal di dimbali ki nga xamante ni moom moo di Thierno moom nag ñi nga xamante ni sax ñoom ñooy famille booy. mbootaay bi daal di nañuy euh, rek euh, jot ay denrées alimentaire du toll ci euh, cinq cent mille mu mel ni sax moom tiktokeuse bi dafa dal di daw rek ak yenn ci koppar yu takku yooyu nga xamante ni sax dajale woon na ko rek ngir Thierno moomu nga xamante ni dafa amoon accident moto ci loolu nag ñii di famille Thierno daal di nañuy porter plainte.

daal di euh, teg ji rek ni nga xamante ni sax euh, noonu la euh, aliment bi daal di chéré ñu daal di koy wàññil sax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di éleveurs yi ak jamonoy tabaski bi sax ñu nekk ñu daal di ràññee bu baax ne lii di xar dafa manqué wala sax bu dee am na dafa daal di lool lu cher lool. tagat yaram lañuy dal di jeexalee wax ci doomu Sénégal bi di Sadio Mané gannaaw ba xamanteni signé na foofa ci Bayern de Munich mu nek lo xamanteni ni ñepp ñu ko doon xaar waye nak c'est officiel Sadio Mané jour Bayern la nak dal dina ya lancer message rek bokku na ci dal di remercier rek ay supporteram waye nak mom Sadio Mané mu ngi wo sax ñi nga xamanteni ni ñoy ya ay supporteru Liverpool ta sax mom mu taxone ñoñu di supporter bi le club mu leen di wo nak ci Bayern de Munich mu leen di xamal sax ne ñoom ñëpp nañu ñëw rek ca Bayern daal di koy supporter ngir rek mu daal di fay amal lu raw la mu amaloon na foofa ca diwaanu Liverpool moom Sadio Mané nag message bi mu lancé rek ci supporteram yi mooy ñu daal di ñëw ñoom ñëpp faral ko foofa ca Bayern ga mu nekk. des ci Sadio Mané moom ak teewaayam ca Bayern de Munich ba léegi xamaguñu ban numéro lay sol waaye nag liñ ci mën a jàpp mooy moom moom mooy sol numéro 10 fii ci Sénégal Liverpool ga mu jóge tamit moom moo fa doon sol 10 waaye nag kii di Souleymane Sané moom mooy waajur bu góor di Leroy Sané Leroy Sané nag nekk foofa ca Bayern di sol numéro 10 bi waaye nag gannaaw ba ko suñu confrère yu RFM yi interrogé moom Souleymane Sané nag mu ngi daal di wax rek ci li nga xamante ni sax moom moo di choix numéro bi moom sax. dem ci bay wax ne kii di Sadio Mané bis bu demee ba bëgg numéro 10 bi foofa ca Bayern gisul benn problème kii di doomam di Leroy Sané jox ko numéro 10 boobu noonu ndax kat lu mën a nekk la. jeexale ak Noha Fadiga moom nag doom la ci Kalidou Fadiga kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal mu nekkoon sax numéro 10 euh, ci jamono yi ñoom El Hadj Ousseynou Diouf moom Kalidou Fadiga nag daal dinay nekk sax koo xamante ni kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal kii di doomam nag di Noha Fadiga mu ngi fësal sax ne war na def rek ab choix loolu nag bokk na rek a ci Sénégal wala Belgique ci fàttali nag moom moom nga juddoo euh, foofa ca club Bruges bu Belgique moom nag Fadiga euh, jamono ji nag gannaaw ba nga xamante ni euh, mu ngi nekk en toute complicité ak kii di baayam di Kalidou Fadiga am nañ yaakaar bu baax mu daal di def choix am rek fii ci Sénégal mbokk yi safoon doon ñu teewlu li lañ leen andiloon